waxoon naa ko Pikine dama ko fi waxaat mooy jëlee jaam yi ci jaamu seen moroomu jaam yóbbu leen ci jaamu yàlla point final. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñu baax te di leen baalaax tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal eh, yàlla dafa dogal fan yi eh, ñu gisoon benn vidéo eh, yàlla dogal tamit ay nit ñu bari yónnee ñu ko. Euh, ñu bëggoon ci tey ma ñu bëggoon tey ji def ci ab jàngat muy waxu politicien boobu bokk ci euh, parti boobu ñuy wax Pastef mu am benn wax bu mu wax ci biir wax ja nag am lu mu ca wax loo xam ne mel na ni jur na ay coow yu bare bare bari yàlla dogal na man mii seetaan naa ci ay réaction te wax ja wax dëgg yàlla ñun ñi yàgg nañ di ko wax yoo xam ne jot na sëkk nit ñi ñu détaché leen ci nit ñi rattaché leen ci yàlla ñun noonu lañ ko doon waxee moom mu wax ne ñoom seen jubluwaay mooy jëlee xama jëlee jaam yi ci jaamu seeni moroomu jaam yóbbu leen ci jaamu yàlla te moom su fekkee ne ci cadre bi mu koy waxee cadre boobu mën na yaatu lool te jàngat yi ci nit ki defit war na mën a bari nga xam ne même su dul dara sax moom la nga xam ne moom la wax su fekkee da ngaa dem ci cadre diine li nga xam ne moom la yàlla di jàngaleel boppam yàlla li mu wane mu doon lu leer mooy yenent bi fi mës a ñëwit loolu képp la daan wax aw nitam ndax yàlla ci boppam ku dem ci alquran mu ngi wax naan wala xadd baasna fi kulli ummatin rasulan di wax ne an yabudullaha wajtanibu taaxuuta yàlla mu ne yebal nañ ci bépp xeet ab ndaw ndaw loolu su demee lan lay wax mooy jaamu leen yàlla muy servir leen yàlla te moytandiku xërëm xërëm nag suñ ko waxee mën naa nekk nit mën naa nekk alal mën naa nekk lu ne loo xam nit ki lu koy jël teg ko ci maanaam def ko ci xolam mu gënal ko lu ne te soo demee ci alxuraan ba tey yàlla dafa am benn wax bu am solo bi muy wax naan ci sootu zumar والذين اتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى متكفى بشر هبادي بمي دفنير هبادي يومي وخ موخني الذين يستمعون الخول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأولو الألباب يعني دي وخنا جاي خمني dañuy moytandiku xërëm ba duñ ko jaamu tey dellu ci yàlla mu ne ñooñu kat danañu am mbégte yàlla teg ci ab ndigal ne bégalal jaam ñi muy bégalal serviteurs yi muy liggéeykat yi mu ne serviteurs yooyu wala jaam yooyu ñoo ñan léegi mu ne mooy ñi nga xam ne suñu déggee wax dañ cay topp la gën a rafet suñ borom mu ne ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla di gindi te ñooñu ñooy borom xel yi kon kii su ñëwee wax lu mel nii li mu wax képp ku am xel su ko déggee moom dana xam lu cay wàllam ndax boroom xel yi mooy ñi nga xam ne suñu déggee wax dañ cay topp la gën a rafet te suñ borom mu ne moom ñooñu lay gindi moom légi nak li doy war ni paradoxe bi ñuy wax rek nga xam Sénégal mom comme li ñuy wax moy le pays des paradoxes pays bu jéggi layo la manam ñi nga xamné ne la nit ñi joxoñ di wax na ñom lañ yaakar ñoo leen wara jangal seen diiné ñoo leen wara yé ci diiné ñom la nit di ñew di tuddu baatu da'wa te soo demee ci alcorane yaakaar na baat bobu mom maam fees na fa del di firi woote rek ba pare wax ne maanaam jëlee nit ñi ci jaamu seeni moromum jaam jëme leen ci jaamu yàlla ay nit ñoo xam ne dañoo wax ne ñoom loolu moo waroon doon seen yitte ñoom ñooy taxaw di sikk loola di ca wax lu ne te li ko waral wax dëgg yàlla moom lu ku mën a xam la ndax ñoom seen bopp maanaam dafa am loo xam ne mooy seen arrangement ndax nit ñi suñuy jaamu seeni moromum jaam te jaamu googu lu jëm ca ñoom kon ñoom dañu cee jëriñu duñ bëgg mukk nag nit ñi dëñ ci loola di dëgmal ki nga xam ne mooy borom jaam ñi di yàlla suñ borom kon nag képp koo xam ne dangaa ñëw yor taxawaayu bëgg yee nit ñi bëgg leen a bàyyiloo xel ba ñu jugee ci loola ñoom dañuy def lépp luñ mën ak luñ mënut ngir lu mel noonu bañ a am waaye comme li ñuy wax rek depuis 2017 waxoon nañ ko di wax ne 2017 lañ waxoon loolu octobre di wax ne euh, maanaam yàlla lépp loo gis ci àdduna wala àdduna bi ci boppam ay cycle la ci 2017 ñu ne dañoo war a jugee ci benn cycle dugg ci beneen cycle ñu nekk ci transition bi ci lañ nekkoon wax na Sénégal nag war naa fexe ba du ratey transition boobu loolu mu ngi ci vidéo 16 ku ci dem da ko ca fekk waaye wax transition boobu yaakaar ngi a am ci fii Sénégal ci ni nga xamee ne yi nga xam bu njëkk ba dañ leen daan instrumentaliser daan leen manipuler ba xeetu wax yi fu mu jibaan rek ñoom lañ daan manipuler ñuy wax lu te wax intérêt ña jëriñu ak seeni du lépp lu war ñooñu ñoom ñoo koy def ba pare ñu leen di instrumentaliser di leen utiliser ngir ñoom ñi sàmmal ñooñu seeni pouvoir jeunes yooyu nag mel na ni ñoom seen bopp ñoom ñoo tàmbali di yeewu di yittewoo seen njëriñul bopp di yittewoo ñoom seen bopp seen diggante ak seen borom di yittewoo it li nga xam ne moo aju ci seen wàllum réew te loolu it mu doon loo xam ne lu ama am am solo la ndax xam nga. dafa am ku ma xam koo xam ne day faral di wax ne kii dundee say nelaw du bëgg nga yeewu te damay wax ne fi mu toll nii loolu daal nañ ko wax depuis 2017 gars yi ay somnifères la ñuy séddale waaye somnifères yi kam dafa xam naa ko moom dafa mel ni dañoo yegg ci seen dat de péremption nga xam ne dañoo toll ci périmé te loolu nag wax dëgg yàlla pexe amu ci loolu depuis 2017 waxoon nañ ko ci vidéo yi ji def kon li am solo rek mooy nit ñi. Euh, ñoom seen bopp ñi nga xam ne ñoom ñoo doon bañ ñoom ñooy bañ yii ngir sàmm seeni propre intérêt nga xam ne daanaka nit ñi ñoom ñooñu ñoom ñoo doxoon diggante nit ñi ak seen borom ab ay nit ñoo xam ne dañoo ñëw ngir jëlee leen ci loola ñoom ñuy bañ loola loolu moom jafe-jafe la te soo xoolee kii wax su fekkee ne ci cadre politique ndax soo dégloo vidéo bi ko xam la ñoom dañ koo dagg da ngay gis ne ci cadre politique li muy wax noonu lu ama am soo la ba tey lu mën a nekk la ndax nit ñi su fekkee ne fexe nañ ba ñu nekk ci condition yoo xam ne mooy condition yu gën ñu fexe ba injustice bi ak inégalité yi ñu fexe ba éradiquer ko wala boo ko réduire ko réduire wala boog ñu réduire ko réduction boo xam ne bu significative la loolu dina tax ba ñoom kenn ku ci ne dana mën a maanaam dëgmal yàlla boromam dootul mën a topp ci ginnaaw kenn di wut lu neex kooku wala di ko neexal ngir bëgg am loo xam ne xam la te loolu gis naa ne képp koo xam ne borom xel nga képp koo xam ne bëgg nga sa réew képp koo xam ne bëgg nga maanaam nit ñi ñu mën a jëriñu seen diggante ak seen borom yow loolu dalaa war a ñor kon wax dëgg àll kii li mu wax nii même ci cadre politique fexe ba ressources yi nga xam ne moo fi nekk maanaam waa réew mi di ci gis seen bopp waa réew mi di ci yëg seen bopp seen wàllum dëkkuwaay yomb seen wàllum njàng yomb seen wàllum faju yomb ba kenn ku ci ne day mën a garder dignité mën a garder ngoram loolu kay wax dëgg yàlla képp koo xam ne boroom xel nga loolu yow moo war a doon sa yitte loolu moo war a doon sa bëgg-bëgg kon daal wax dëgg yàlla macha allah yii moom gis naa ne coow yii maam deful lu dul di gën a wane rek li fi nekkoon maam nit ñi daan ci dund ñu leen ci daan jëriñoo. te am ñoo xam ne ba tey ñoom ñoo ko bëgg garder am ñoo xam ne tamit dañ koy instrumentaliser tamit pour di ko politiquer ngir di ko xeexee seen adversaire politique yii yépp day nekk loo xam ne day gën a wanewaat rek ñenn ñi seen taxawaay day gën a wanewaat ñenn ñi maanaam ni nga xam ne ci lañ daan dundee bu njëkk ba mu mel ni suñ borom dafa toll ci di leen weer di wane dëgg-dëgg seen taxawaay ak seen dundin ndax depuis des années yaakaar naa képp ku ñuy déglu déglu loolu yàgg koo dégg ci suñuy wax di wax na ci jamonoy dëgg lañu ñu lépp loo xam ne maanaam dafay nekkoon te du dëgg suñ borom dana ko feeñal ba ñëpp gisal ko seen bopp te léewut maanaam te loolu ci domaine yëpp nag loolu depuis 2017 ñoo ngi koy wax ci vidéo yi kon wax dëgg yàlla macha allah sant yàlla ñu ngi baalu àq ñëpp di nuyu ñëpp jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum